loolu moo mouvement bii di qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux Dara, mosquées, jumeaux, écoles, prisons, pouponnières et internats. donc yow may si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 And kenn ko dóor yaw mi ma yar di ma fegal seytaane jaar di fegal lu may sonal du ma ko gis lu may xatal du ma ko gis lu may lajal du ma ko gis du ma gis lu may ragal fegal ma mal lu may sonal fegal ma yar lu may xatal fegal ma yar lu may la jël fegal ma yel lu may xatal fegal ma foo kay mbugal ak kay mbugal ak mbugal tamay ma foo fuy begal ak kay begal ak begal adduna seppi ma la tamay ma jàmm xewal fekk tamay ma ay garam afan wu dar fanam keroog àllaaxira la fayee loraaki gàcce gi ayee mboole ma faw yokku tamay may tamay ma firdawsi ma jël keroog àllaaxira la fayee loraaki gàcce gi ayee mboole ma faw yokku tamay tege ay mboole ba faw yokku damay may damay ma fi daw ma jël sama murit de ko bégal sama xarit de ko bégal sama barab de ko bégal ku may bégal de ko bégal tamaani tam de ma bégal aka musal aka aka yaram aka jubal aka garam aka teral damay bégal bépp jullit te bu ma gis bu dee. Ay, pero

بزرع بزرع فرد الدين هذا سرما بالعين يا ولي يا ملكي لا شكر أبي يا والنور فالعسى سرمدا بالخير يا ملكي وصبر Hallelujah. Hallelujah.

مجنون أكرما غزل برنغ بابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عادي مجنون أكرما غزل برنغ بابا لا إله إلا الله عادي مجنون أكرما

ولا لوم وتحمي يا وانت لكل خير قد راضي Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Adieu. yàlla amul baay wala salli wala ci tantamal aduna yaa ka mën a war xamoo ko baax xamoo waroo fi taxaw danga ko war saw melokaan abul solo Seex Saadi Xoo janoo sa dem jaaxal na noo yow la nu xam ba dem ba xel mu dal sëriñ saandi hoo moo nu daa yonent bi bégal tarbiya moonu ko defal kuy wutu ki ci lii amatul fam jiray na seet ko kullum min seet na ko tijaan waa xaadir seere ko ku mel ni moom amatul جفن جرين شاك كل مريد وخادم سيركو كل المريد moom Serigne Cheikh Awa Balla yaa xafaara zunub moom maam Thierno borom Daarul Muxti borom bayti ak maqaama ñu ngi koy ziar bu baax ziyaare itam mbokkam bu baax mi mu feggool di sëriñ Modou mbakke di doomi sëñ tedd Mbacke ñu ngi koy ziar di ko jox cër bi ko yàlla jox nuyu bu baax sunu xarit sunu soppe ñu soppante ci lu baax muy sëñ Abdul Ahad Dieng dañoo wax ni lu baax amuli at lu baax képp koo xam ni ci nga soobu di ci liggéey rek keneen di ca soobu di ca liggéey yéen a bokk lépp te bañ ko xamee ba léegi yitteem benn rek la bëgg sëriñ Touba nangoo gëstu ci yoon wi di waxtaane mbaaxuk sëriñ bi jox ñu yar ak teggin yëg nu lu ñu nekk mu dugg ci lu muy duggit yëgal nu ko ñu nit nu jàpp ko ngir sëriñ bi defe naa fekki naa ko miraaran fële ca tëngéej yendoog moom fekk si naa ko fii ci yaraax miraaran gis naa tam gox bi mu nekk di yaraax ni ko kilifa yi bëgge jàppanteeg moom ñi ci ëpp ay wéy juróom lañu loolu nag jikko ju rafet rek moo koy may nit turux yi këru diine bu nekk am na ak ñoom alaaka bu rafet loolu yar ak teggi na koy maye tey xam ngeen ni ci waxtaankat bu ñuy soxla ci tant yi bisu tey bi xat na lool ci nun yàlla xam na ko cinq programme laa ci war a conférence ci guddi tey wokaam HLM gële fa laa jógee soxna mayum seigne mustapha bassir don ma waxtan lo ci mam jaara nu ngi war a demaat gën ta yow mit xamuñu ñu lay def ñu dik waye ko ni xawma nu ma koy def nim la defa tax yow da nga bax yaru bëgg seigne Tuubaa man nak ku xass bëgg seigne Tuubaa ya ma moom bu la nexé yónni bu la nexé warma bu la neexee sax def ma sab jam di ma ay course nanguna naa ngir sëriñ bi yow xamna ci yow càmbar la ba xamni ni nga serigne and nak dañu wax ni bala dugante ak nit dang nga koy càmbar balaa réccu di ci am bala ngay ak nit sëñ toba neena inna sanadiqun muqaffalatun miftahuha bimtihanin, famtahin wasili nit ñep ay magasin rek lañu caabi bi tax nga dugg ci ñoom mooy test bu la jikkoom doyee ngeen ànd bu la doyul nga romb ko dem li ndokk nag bi ñu xamee ci yow lu rafet rek yar ak teggin di ndaw sa moroomi ndaw yu bari ne ci leneen yow waxtaane sëñ bi képp soxal la kon ñun ñëpp a war a ñëw ñi leen mag ci yoon wi doole leen ci jàppale leen wane ni ñun ñoo bokk lu ñuy def te am na ñu relève bu rafet boo xam ni fii ñu toog di waxtaane sëriñ bi fu nekk am na ndaw ñu mën a jub ba romb ko ci anam yépp njaw ñoo ñun ñoo leen war a jàppale tatagal leen di leen dolli ci seen bis yi moo tax ñu dikk ngi ñaan yàlla nga ko yàgg woote ni ngi sant soxna yi di sant góor yàlla yi sant waa dëkk bi yépp ki ngay sant nag moo yeyoo sant sëriñ Tuubaa ndax moom kat nee na yàlla sama borom mi ma sàkk sant na ma gis naa bëri ki démb sax ku koy ku koy bañ xam nga léegi internet bi du moo xew ak croix ak attaqué ko la dàq jàng téeméeri junne yoon wax ba noppi doo ko laaj fa mu ko teg da ñëw rek croix commencé weddi ni du dëgg te lu dangereux mooy loolu boo déggee sëñ Tuubaa di wax ci masaalikul jinaan mu ni kalaamahum iza dahaka ya balit faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaamal awliyaayi lastu afhamu li annani ana ana wahum humo nee na waxi gaayu yàlla yi bu ñu waxatee mu lëm la yow mi ñàkk xel amoo discernement amoo intelligence amoo compréhension ci seen wax mu ni bu leen weddi di gaañu defal na ku baax ku ñuy wax Abdul Wadood daan def rek mel ni dañoo laaj sëñ bi lu Abdul Wadood daan def mune ne suñ masee wax walu sangam neena nangam la ko yalla may day wax ni ñom ñom la man man la lol nak fi ne mo commencé tuxu ci senegal legi lu upp sa bop rek nga du dëgg ta nek te bab bi man lu nek nga nangul ko ko te tubaab bi ab jam rek la fi ne avion lu ko gëna yéme amul ay ton nga seuf ci nit ñi seuf ci bagage yi daw ci benn mbartal piste bi jik rek fëx jëm ci air bi romb bâtiment yi lépp di naaw te yor ay tonnes te wu loolu miracle la te nit ko xalaat defar ko te ko jox xel mi mu ko defare kon lu tax mënoo nangul nitu yàlla dara lum ne yàlla may nag ko nit ñi yemuñu ci dara te yàlla wax na yenant bi ni ko unzur kayfa fadalna ba'dahum ala al-ba'd wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ci suratul isra yi waa kay ñu ngi dalal sëñ Saliou Samb sunu rakk jàmbaar ci waxtaane sëñ bi mooy li ma la wax rek ñëpp dinañ la ñëwal ndax sa yar ak sa ni ko te yowmal qiyaam la dara yi ëppante lii ñuy bañ ci àdduna koo ni diwa man diw wala diwa ëpp ak may ñu koy linkaar ak weddi sunu borom nee na bis pénc lay rawe fi ne am na ñoo xam ni bu ñu waree ci kaw siraat war a jéggi siraat day mel ni seen leer gi day bëgg a fay lëndëmu siraat ba day mujj siraat naa di leen muslu naan gaaw leen jàll bala ngeen a fay sunu leer gi nu amee woonu su lëf kon loolu dara jala am na ñoo xam ni duñu taxaw sax foofa di fa tardé yenentu bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni bu dekki jotee may njëkk a jóg su ma jugee Aboubacar Saddiq jug kuy jug door a jóg loolu daraja yi yemul yenantu yàlla Moussa alayhi salaam frère am di Haaruna nekkul woon yenantu mu ni dama bëgg nga def sama frère yenantu comme man wa aqi Haaruna u afsahu minni lisaanan moo ma gën a set làmmiñ yónni ko comme yenantu yàlla nangu ñaanam defal ko frère am yenantu def nit yenantu kay te programme wuñu ko moo gën a yomb yi ñuy waxal kon li fi nekk mooy soxor ak bañ lu baax ak bañ ku baax moo tax ñuy diingat may yi waaye nag ku am fulla doo déglu kuy diingat dangay am fulla la ngay wax nga gëm ko te muy dëgg te nga wéy ndax sëriñ Tuubaa bu déggoon li ñuy wax kon tey fii liggéeyam bi agsi du fi agsi fekkoon dee na déglu bi mu wootee yoonam wii lu nekk dégg na ko mënoo fee sax saxal tariqa lu dégg na ko waaye mu dëgmal boroomam rek di roy ci yenant bi alayhi salaatu wasalaam di ko liggéeyal di yëkkati alquran ba tey sunu boroom defal ko ndam yépp may gi mu am tey amul ci àdduna kenn ku ko ame te kanam la jëm sëñ Ibrahima Diop al-Mashari dafa wax ni wa huwa alxadimu allazi maa misluhu wazarun sarqan wa garban wala zu diini wa diini nee na ku mel ni sëriñ Tuuba penku ba mu jeex du ngeen ci fekk nawleem soow ba mu jeexee bu ngeen ko visité du ngeen ci fekk nawle sëriñ Tuuba te ñun ñii mënuñoo lijjanti ba dàq jàng sëñ Ibrahima Jóob Almasari dàqu ñu koo jaamu yàlla gënuñu koo xam loolu siriwul bokkaale bokkaale kay dëgg mooy li yàlla may jaamam nga ni doo ko nangu yàlla warut mën a may jaam loolu muy bokkaale dëgg dëgg ah fir li xew weddi weddi ak may moo gën a garaaw foofu weddi ak may yàlla may nitam nga ni mënut nekk nàngam nit mënu koo am looloo gën a garaaw ki nu yàlla booleel nag ku mënta wàññi dara ci kàttanu sunu boroom mënoo wàññi ak mayam sëriñ seex mbàkke gaynde Fatma sëtam daa wax ca téeréem ba alaahali xamarun min naxwi tuubaana soo ca demee dafa wax ni yaa xaasidiina imaaman naasi aamatuhum mootoo bi xayzikumoo raxman wa xusraana ñu ne ko lu tax mu ni fa inna qudrata rabbi ratabathu imaaman mustaqiman rafian ay sumakaana nee na yéen ñiy iñaane ku yàlla jiitalal boppam ni ko jiitul jox koy mayam dee leen ak seen mer ànd ak perte ànd ak xol bu tàng mu ne waaye ku mënta wàññi kàttanu yàlla du wàññil dara sëriñ bi kàttanu yàlla moo placé sëñ Tuubaa muy imaamu ñépp nekk ca kanam te kenn du ko séen dafa fa mu feeñ day yëkkatiku mbiram kaw rek dootul jëm suuf loolu la yàlla dogal ci sëriñ Touba. yéen ñépp xam ngeen ni sëriñ bi fii la wootee bi muy woote fii loolu musta am ci histoire dafa jar di wax sëñ bi fii la wootee ci dëkkam fii la ko yàlla maye li mu ko may fii lañ ko nangule te ku bañal sëriñ Touba di nga gis ku la raw fuuf nangul ko maanaan ku bañal sëriñ bi di nga gis ku la raw téeméeri junni yoon te nangul sëñ bi sëñ Modou Diaw Baxa da ngeen a yaakaar ku mel ni moom ci téere yi da cee am sëñ Modou Diaw koy wax barki démb ba Gosaas sëñ Modou Diaw Baxa ku mel ni moom ci téere yi da ngeen a yaakaar ni am na. te bi ko naar yi ne ah, anta cheikhu ndax yaay sëriñ bi mu ne laa ana walaamuhu faxat kii as ngoorom laa séenu ma sax sëñ Tuubaa wax. sëñ Modou Diaw bi sëñ bi demee gànnaar def fa ab diir naar yi di indil sëñ Touba xeeti laaj yoo xam ni laaj yi day baree bari ci kër gi ba te sëñ bi bëgg koo boole ibaadaat yi jaamu yàllaam li muy bind mujj gi nag jotam mayetu ko mu ni man daal su yeboo ma woolu Modou Diaw sëñ Modou Diaw nee na daa toog fii ci senegal dégg baatu sëñ Touba mu ne ko Ahmadou ñëwul fekk ma gànnaar sëñ Modou Diaw ni baatu sëñ Tuubaa laa dégg daal takk fasam nee na wàccuma ko ba dugg biir gànnaar bi ma agsi ba nuyu ko tedd ki nee na mu muuñ ñi ma noo def ba ñëw nee na ma ne ko daa mel ne sa kàddu laa dégg sëñ bi ni ko sikkuwul ñoo doon def pexe ngir nga ñëw ndax laaj yi dafee bari te sama jot mayuma ko ma bëgg la fee wuutalee sama jëmm nga may tontul laaji naar yi sëñ Modou Diaw ni ko ah mbàkke de laaj yi moom bu dee luy aju ci téere fii ba màkkatal mukarrama yow buñ la beree ne amul génn góor gu ma raw ci téere yàlla sàkkul loolu téere yi góor gu ma ci raw yàlla sàkk ko bu dul yow li ma jaaxal nag mooy damay ragal ñu laaj ma laaj boo xam ni du laaj bu aju ci téere man nañ maa laaj ci xaybu te xaybu yàllaa ko yore sëñ Tuubaa ni ko Modou Diaw du maa la woolu sa yoon bu mu nekk ci loolu bu guddee dinaa la xamal lépp dara dootu la ëmb ngir nga tontul ma leen daal ni ko bu guddee na nga fanaan ci dëpp néeg bële bu la dara tiim ne ko dinaa la muril ñaari peggi lawhul mahfuz lañ fa dogal ci xam-xam dañ la ko sol bu subaa nga tontul ma naar ba ñu xëyee naar bu indi salaat laaj suwaal jawaab suwaal dañuy indi rek xool ko ni a anta cheikh ndax yaay sëriñ bi mu ne ko laa ana xulaamuhu faqat man gu garçon laa as ngóor laa ci sëñ Tuubaa ginaaw bi la ñew ba ci sëñ Tuubaa ni ko li ma jafal ba ma jaaxal naar yi luñ ma laaj ma tontu ko dama bëgg mbàkke nga bañ ko nanguwaat rafaatal ma ma yoré ko sëñ bi ni ko rafaatal na la ko may la ko mu digi yeen ñepp xam ngeen lettre am su koy bind min ahmadu jaw paha laana allahu man wabaha sultanul arifin malikun nuhat wal lughawiyin maarafatul gaarifiin sëñ Modou Diaw Paxa nee na mu ngi jóge ci Modou Diaw Paxa jëm ci jaam ñi lii may bind Modou Diaw Paxa mooy kan mu ni mooy koog bi tànqal kuy naan ci géeju yàlla bi maay buuru ñi xam grammaire u arab ak ñi xam làkku arab moo tax li muy bind ci arab kenn du ko bind te boo tiimee ay wooyam da naan daanukat la moo tax yoon ku ci nekkul daanukat doo avancé gars yi maa leen dàq jàng de ma wax la loolu gaay di ciow ni ma mën naa leen a xamuñu dara arab arab c'est une langue arab langue la dem jangé arab dike, jëm ci réew yi naar japp dikk nga xam nga dara xamuñu dara jëf Sam xamuñu dara ko xam dara day xam mbirum sëriñ bi Ko xam dara day nangu ni yalla def sëñ Tuubaa man yëf yi fiñ ko teg nekkul jëf Bato jàng fiñ ko teg nekkul foofu xoolal sëñ Mbay Jaxate neen sëñ Mbay Jaxate neen mboolem lu nit mën a am lum rëy rëyit safuma ndegam amoo kee fa Tuubaa am nga xeeb naa ko mboolem ku nit mën a gëm gëm Bàmba moo gën a wér man ku gëmul Bàmba mii gëm kenn yéem naa ko ma nga ko wax sëñ bay jaxate neena kiko dua wax doomi mam xaadima jaxate kala la moo tax sëñ tuubaa faw nga ne ci daanukat sëñ Modou Diaw sax amna na fu mu wax ni sama njabot buñu méré sama yonne ci nit ñi suñu méré te touba neena walastu ubali bil baraya jamiihim iza gadibu wallahi in kunta radiya wala su yi man faalewu ma bil baraayaa ci mbindee fi yàlla yépp jami i mboolem seen isa xadiboo ndeem mer nañu wallahi bu fekkee maa koy giñ ci yàlla in kunta raadiya dagam yow sëñ Tuubaa yaa ngi gërëm rek mbindee fi yépp mere faalewu leen xam nga lu mat am ngërëmu sëñ bi nañ ko am xam ngeen ne yëf yi tegewul ci yiñ ko bëgg a teg bu fekkoon mën a jàng ak respecté ibadaat yeeg yooyu du nu jébbalu ay jàngkat rek waroon sëñ Tuubaa mais sëñ bi daa yor leneen waxal na ko boppam xafistu maa siinat ani dafaatiri fala takun an xidmati bi faatiri yor naa man sëñ Tuubaa lu nekkul ci téere yi yor na leneen maam lu mu bokk ak sëñ Tuubaa bàyyi soo ko seetee ci beneen anam sax man nga ne ñoo bokk ndey faati isa jóoba ko jóg soxna faati isa njage isa ko jóg Njaga isa ak Afsa Lawbe Mbàkke Afsa Lawbe sëñ Ahmadou Soxna busa Mbàkke ko jur Ahmadou Soxna Bousso Mbàkke maam maarama ko jur Ahmadou Soxna Bousso juraat Afsa Waalo mu jur maam Jaara Bousso mu jur sëñ Tuubaa kon neen lañu njëkk a bokk bokkaat tam wenn wéy jur di maam Mor Anta Sali maam Cerno jaay lépp jënde ko ak taalibe dem ba ni njabootu sëñ Tuubaa bu naree ñibbisi sëñ Tuubaa ñibbisi naan njabootam génn àdduna sama njaboot dem li gën a mës a gis ku gëmee noonu magam sa doom na faatu tas doomam des loolu nañ ko analyser gaa yi xam ngeen ne maam Thierno bu gëmee nii sëñ Touba da ko war lu lu kenn amul maam Mor Jaara borom saam mooy magi mag moo mag sëñ Touba àgg na ci ñetti at sax la ko may maam Mor Jaara borom saam téeméeri rakkaa la daan naafila bi sëñ Touba mokkalee alxuraan moo ko téyel déglul ko sëñ Tuubaa ko wax sëñ Mouhamad Lamine Diop dagana mu bind mu ni man sëñ Tuubaa sama mokkal alxuraan maam Mor jaaraama téyel ba ni wér na waaw mag joo bokkal ñaari wéy nga mokkal alxuraan mu téyel la ko ba ni la wér na dinaa fi laa téeméeri rakka wëlbatiku jaayante yow ne sab taalibi di dox sa yónneen ku la gëmul yeewul maam Mor Jaara Baara nee na yabiitu yu salli suma yusbiu Usaiman, wa juduhu illa ka amtari wabili mamor jaara borom sam ah ya su'man na'im ja'ana muta'assifan yukhatibuna wa dam'u fawqa tara'ibi seigne modou bu sama seigne mbacke bu soko joyon lolou mamor jaara وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم rabbi a'uuzu bika min amasaati sayyi'aati wa a'uuzu bika rabbi an yahduruuni ci Borom Tuubaa bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu taala ala sayyidina وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صدق سال إلهي بالمناجات ومن يدي على يدي دلال العلماء والأولياء من لا يزال قوتي ورميان خزنتي فزيد الكرام ولداود أبدا خير المرام أديتي مخجلة كل الملك كان منعيسا وانسى الملك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 دعوة من كل من بالكفر ساجر ولا أدون ذلك تلمسه إنسان معنى يؤمن بالتواصل سبحانه ربني ليرتجي ومن تعبير القلوب يرتجي أكرم به ربا يقول ما يريد من علما من الفلك يريد شكرته ولا أزعل أشكره ولفعيدي ولساني أشكره أحمده بديني لكلاب واحدا له ما جلاد وجزاه لي بخير المال يا من جعل العالمين جمال الله ربي زاهرا وباطنا حيث أكون رائلا الخاتنا والمصطفى والمصطفى والمصطفى والمصطفى والمصطفى وزيل أجيلي سلام تسليم العالي يا جعل الخمسة سعدوني اليوم فيريازو مجرمون اللهم بقولي أبدالي أبدالي خدماتنا أبدالي مهر كل مجرم ومجرما مهر كل مجرم ومجرما كتبته أحمد ساعتي على النبي الله رسالتي أيه ما الأبرار وسنن بدعاني وأزير أزير مع الغايين أزير وسنن هناك أزير مسير مع الأخيار الهي بالهرب وما يلي لخير الله او المنه يسير بها النزول يسير خادمي الى كريم عليه معروم يهزم سكوري بأقلامي وقلبي وجسدي لعل كان علي بالجود وعزه بزوري وأتيني ويزيل الحداء من الوعزين وعاب فوالعزين أمري لدى زيري ومغزي وزيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما خدمة المختار وهو عجيب زوري يا كوني عبدها خادم النبي وعمر البرايا لا يزور سهوري وأيامي خلل زوائد بكوني عبد الله وهو الزعيم ستوري في الدار مدحي محمدا بنصر ونصر وهو نعم زاد بزارك كتاب الله والمصطفى النبي وعذابه في البحر نعدو وعاتبه بالمدين وبالتعبة وإلا جعلنا كيألو وخاطبته في البر بسير التعاي الله والمختار والمنير نبي الله تابت لأنظارنا وعدري مليك سات يدي فالخالق تمجيلا أو بي بمنيتي فسكال المولى الكريم يزيو عليك سرعيت منه جل مسلما مع الآل والأساب سعادة دائمة يا رب يا وعد كل من تهلك بيا سعادة دائمة يا رب يا دائمة يا ربي رادة دائمة يا ربي من صلني خير خادم المصطفى سيدني أخدمه بما اصطفى أقدمه إلى دخول الجنة دار الخراري والمنى والمنى من ظن أنه يكون عبدا مرضيه لك مجيب بدا فخره الدلال والإدلال ينخاد منه بالهلال مدهت قبله لدى البر ولي متن ولا عن كل ولي مدتو مثل لدى ما ينبع ما يوبي وكفى سنبع مدتو هند أناس الجلوى متن كفاني الهدى والبلوى مني إلي خدمة خد لا سمت روضته إلى القيام مسمت rabbi yarhamni sibtuhul jilaani aliriraanul lazi axlaani rabbi yarhamni sibtuhu abul hasan alirduwaanun yuxallidul hasan rabbi yarhamni sibtuhu tijaani alirduwaanu mubidil jaani rabbi yarhamni alxulafaa'ul arba'a mhm. suridnal muqarrabiinal mutbaha man lam yakun هني يرضى فالكريم ربي هني يرضى ليس يريم يا الإله والمستوى خير الجزاء كما تخبر وحدا عن جزاء سلعات من كرمه يا الغالي alli donal miraan alxaani ca géej ga ci géej gi ci géej gi ci géej gi la lambe yàlla ba fekk muy géej daam mbàkke Sayxul Xadiim خير الخديم مود مود مود مود مود مبكي مباري اي borom yére yu weex yi ñu mooy sunu wasila wala koronu tànt bi rek ñoo ngi jox cër bi nga am ndax genn doomu aadama tedd diwul yàlla waxee wala xadd karam naa bani aadam rek la kenn tëddadiwut kon kenn ku ne ci tànt bi maa ngi dégg rajo bi ñoo ngi lay jox cër bi nga am amut nit ku tëddadi yàlla teral doomu aadama yëpp ñoo ngi jiital ci ziar bi suñu sang yu baax yi fi nekk Cheikh Ibrahim ñoo ngi lay ziara Mbacke yaram alxaaji maam Thierno moom Cheikh Sidil Mokhtar moom borom darul moom ñoo ngi lay ziara di la jox ceeb yaakaar naa boobu gën naa nekk xale sa waajur fekk ma ci kër taalibeem bu nuy wax Tanor Dieng ma waxtaan mu tuur ay xéewal jël xaalis di ma ko jox ma ragal ko jël yàgg na alaaj maam Thierno mu delloo xaliss bi ci posam ni ma dama lay defal doto sa te kama ko defal ji da jënd bam jar te man ma xamni mom moom jënd bam jar ak cheikhul khadim mom ko wax delloo xal ci jibam dama lay defal doto bam mako wax kan la won bi kan la kon yeen suma leen rek waxuma la sante gi barke waye wax jooju nga xam ni ki ko wax waaju ko daa dagge ci moom ñëw ci man te mu meññi leen yal na yàlla guddal seen fan ñu suñ see xaw bàlla meloon yàlla na leen dab ci barke borom Tuuba noo ngi ziyaara bu baax sëriñ Modou Mbacke mii nga dendal di sëriñ sëñ Mbacke Kajoor moom it ngeen bokk lépp ndax samaam ja taxawaayu maamam rek la taxawe woon Mbàkke Kajoor jotaayu maamam rek la tooge ji woon Mbàkke Kajoor suñ Mbàkke Ibra moom rek la boroom darul moo ci remplacé woon Mbàkke Kajoor la boroom daaru dëkk ba bi ko boroom Tuubaa sancalee darul moxti darul moxti cerno sancalu ko boppam suñu xam sutu jaxatee xëy indil ko lettre borom tuba ne ko na nga genn te wax te jang ba tollu barab sangam cerno fofu ay keur ga darul monti la ko tuddé cerno lu la fa fekkut dama ko amul ndax leer na ni rek la démé mami ki la mami ki remplacer ji won suñ bakki yi moom suñ mbàkk rek no bokku momit la seigne bakke mo rako won bam ñew mu wax ko wax ko ni ibrahima ahmadou bamba mi moy sa taw ahmadou bamba ibrahima mi moy sa bay ni le seigne bakke mo ran seli bolé won borom tuba ak seigne bakke man ki tok kon mbolem ci yi nong koy bolé len ko jox yara sang bu baax bi ngeen dendal momit sëñ Seexuna Mbàkke moom sëñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Abdul Ahad obaridu rabbihi wabunu sayxihi sëñ Aboo mii léegi laa ko bàyyi déndee gële ca bori Tuuba léegi ci siyaaru déndee ba noo bokkoon fenn fu nu nekk ci takkusaan laa ko bàyyi bu la fekkee fii ku ko ñor ba sëñ Aboo mii sëñ Soxna Mbàkke mii doomi si xam sam suñu abdulaat léegi laa ko bari léegi waaye li la li ma fekk si ablaay di la ko wax mooy dëgg Cees laay waxtaane jóge dénd ñëw Dakar xam nga ni yaa ma ko jaral waaye bu waxtaane ku war a waxtaane Cees ci buddi bi bu jógee tuuba waay waay daa war a takk kay xanaa bu ma rombee dugg fii war a génnaat dem sa jëmm tax Abdoul Ahad daf maa bëgg daf maa jàpp Abdoul Ahad li muy wax ak man ci téléphone amul kenn kuy téye rajo du ko ko mag du ko ko gën a nekk xale kuy téye rajo kuy waay waxtaan ak barki Seexul Xadiim ñii di waxtaan ci Bamba ji li ma kii li kii di wax ak man amu ci ku koy wax ak man day jël une heure de di waxtaan ak man yaay sama waxtaan bu waxtaanee dara lu neex sax man la koy yónnee Nan ma ñoo doon ki fi de waye yow nak waye yow kenn mënu la kenn mënu ko kenn mënu ko la ci li ñuy def waye daf ma bëggal boppam li fi ma tek sax man xamna ni yépp ma waye mu bëgg ma jàpp ma kon sacrifice bu ne jaral nga ma mu def sangara ak sobe buusu ko moo ne woon sëñ bi tey nga suuxal kër gi yalwaan na ba tàbbi ci kërum jaare bele certificat d'étude la am bàyyam ab lébu la way juróom bu jigéen ab séeréer la certificat rek la am li xale yi am bu ñu amee douze ans wala treize ans moom rek la belay am ci diplôme waaye mu ni borom Tuubaa yére yi daa fag damaa bëgg nga jox ma ko bu fekkee yeneen a ngi ma fóotlul lu suñ mag bi jox ko mu fóotlu te indi gis muy jàpp mu dem wuti xànd yi ndox ñëw rangale mënta sot xalima mënta soos daa waaye mu lijjanteeg tubaab bi ba am ko pilim encre yu yu ko lew ñëw jox borom tubaab mu laaj ko ana loo bëgg mu wax ko ko mu ne ko boo bëggoon mel ni Ibrahima Fatima Ibrahima Fall ma defal la ko tey waaye dinaa la ñaanal ci ndigal ca poste ma la xewee 1895 it la xew 1914 ab tubaab la votel fii Sénégal gañe ko li dal Blaise mi jëfaloon borom tubaab mooy mooy nit ku ñuul ku yor dara bu ñuul ku njëkk a ci assemblée nationale bu France Blaise Diagne. boo fee la gisee kañu naa Blaise. mu naa ko yaay belees Baye Moussa Ka am iblis mu naa ko may belees ab duwaañ laa dinaa la dimbali sa jaamu waañ laa belees a jël yéreen ya yóbbu la dina ca kër commandant la di leen tere duma keroog belees lootal na Bamba xandi ànd ak waa gaal ga Bamba guróom du sankar la tax mu war kàttee ca ama bal sa sin dafa liggéeyal Bamba ca ama li kese la sëñ mag bi lu ko waay yéene yàlla defal la te lu war a mën a nekk la ñun ñi nga xam ne dañuy gént di ko fàtte sax suñ kër yi ki fa gën a dégg suñu ndigal moo gën a doon suñu xarit am de nit lañ léeg ñu gént xëy ba koo nekk li mu doon problème ci kër yi gën a dégg suñu ndigal moo gën a doon bu ñu amee fulla jooju yàlla mi nu bindoon nag ah fii nii yàlla def borom Touba borom Touba ko de mu def ko ko yàlla ba waxee ni wa maa rabbuka bi zallaami lil abid la ñëpp waroon a maan te xam ne nu waay def yàlla yàlla dina ko def yow. sëñ Touba ndem gisuñu kuy am lu mel ni li muy am jarul gaa yi di fi nekk di werante fi mu toll coow lee bare ñuy nekk ci réseaux sociaux yi di xaste ak lu leen neex waaye kuy am li borom Touba di am moom adduna tegu ci kon kenn defalul yàlla lu toll li ko borom Tuubaa defal lii kese la ko defaloon yàlla mu defal lu mel li mu defal borom Tuubaa jeex na takk waaw yàlla amul ndey amul baay amul mag amul rak amul dom. sifa yi bokk na ci almuxaalafatu lil xawaadisi sifa yi sans borom bi moo waxal boppam laysa ka mislihi sayun Yalla amul len luy niroog moom Yalla niroowul ak nit ñi dara lenn rek la yàlla nangoo am lu nit di am mooy xarit moo waxal boppam wa taxazallahu ibrahima xalila xarit rek la yàlla nangoo am lu nit di am bi yàlla nangoo am xarit la borom tubaab fexe bay xaritam xarit nag nit mii nga xamante si nii attanul dara sax li koy tax a doon ci moom xam ngeen nit mii gën a attana li li tax a doon xaritam ñëpp xam nañ ko Cheikh Amadou Bamba la daa sax ci lu neex yàlla te xamut lu naqari yàlla may la ni ko Amadou Bamba sama xarit li kese la sëñ Tuubaa sa xol moo mësta jàng jëm ci lu dul yàlla lam yamil kalkali li gayri ilahi wali rabbi qawlin taha wa samaai lam yalid fi fuaadi min irtiyaabu bi lahdillahu xaadali zajtimaai ku ma sa xëy sa bopp gontu ci yàlla borom Tuubaa du sama ak koo mën a doon lam yemin kalkali li xëyri ilahi koo xam ne xëy nga ci sa bopp gont ci sa borom laa la wax borom tubaab du sa borom moom bi mu xëyee ci yàlla lan ko gis bi naaj bi tàngee mu jànq ci yàlla la jànq bi muy gont ci ngoon gi ci yàlla la ba ci la ne maral as gor borom ci ak masta masta masta jàng nee na lam yemi kalkali li xayri sa xol bi masta jàng jëm ci lu yàlla ci yàlla rek waa léegi loolu bu yàgg yàlla du ne saa xarit ngaa waa léegi Sëñ Tuubaa xaritu yàlla la lii Sëñ Abdoulaye Diop bi si doon wax ñu ko ñu ñu koy wax ci télé yeeg rajo yeeg réseaux sociaux yi d'accord murid da ngeen di bokkaale ni ngeen di bokkaalee neex na waaye bokkaale woo leen nag maa leen di wax li leen dal bokkaale woo leen yàlla seen sëriñay xaritu yàlla ndax dégg nga ma murid yi bokkaale wuñ seen sëriñ mooy xaritu yàlla yomb li jënti la murid yi duñ bokkaale moom mën naa la ko justifier dëkk bu murid yi nekk ci àdduna bi dëkk bu murid yi nekk néegu yàlla ban fa def mooy gën a seet kër ya ndakaaru gi ñuy fanaan ñun néeg bi fi gën a seer yàllaa ko moom waaye waa kër borom Tuubaa ko liggéey lu dul dëgg nee leen ma du dëgg ah njaareem ñaari atatee néegu yàlla ba bañ ko ubbeeg ñaari atatee mu am téeméeri at ba tey ma ngay moderne kon ñaata la jëloon ci jamono booba 1924 lañ ko ubbi woon ñaari atatee mu am téeméeri at bi ñu ko ubbeeg léegi te ba tey mu ngay moderne évaluer lañ te defoon day toll yéen daal di ko dina Touba nag 63 la ko sëñ Fallu Mbàkke indi woon te ku ñëw soof fu murid yi liggéey néegul yàlla laa la wax mooy gën a seer ci réew moom ñu ko liggéey mooy doon néeg dafa gën a seer waa koo xam ne loo ko defal du niroog loo defal kenn kan nga ko bokkaaleel du bokkaale yàlla nan la borom di bokkaale yàlla impossible sëñ Touba nga xam ne boo ma sànni wax yàlla rek kay buur da tàllal baaraamam ni ko yàq del wax yàlla wane yàlla rek day mel ni am na ku ne ci wetam kooku taalibeem dina bokkaale yàlla ah ki wax ni malikun lahu sharxun wa garbun wahdahu wa kaza lahu barrun wa bahrun yukmilu lahu lwujudu alladi xat saanahu qidamun ma albaqaa'i wa gayrullahi lillahi sëñ tubaa nee na loo gis ci planète bi te du yàlla alal yàlla wa gayrullahi lillahi allahu jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad walam yakun jalla lahu kufuwan ahad wa sarmadan bil mulki wal hamdi farat as'alu annahu ilahul wahid wa anna ahmada rasulul abid fonk yàlla ak ndigal ma tax mu wàcc ci kaw océan Atlantique kooku taalibeem dina bokkaale yàlla ah mënta nekk boo nee yàlla kenn boo nee Sëñ Tuubaa kenn la sax ñu naan yàlla rek kay kenn football bi sax am ku yor ballon d'or ah ñi bañ sëñ Tuubaa kenn la l'islam bi bi mu ñëwee léegi ce njool Makka tey jii ñu toog bu njool Makka jàllee ku mel ni borom Tuubaa mës ta ñëw ci l'islam amul l'islam bi sëñ Tuubaa kenn la ci ndax lu ne am na kenn bëri sax am roi de arènes ñuy bëre am nañ roi des arènes ngeen baal ma ci li may jël exemple damaa bëgg xale yi comprendre mbër yi am na roi des arènes football am na ku yor ballon d'or te duñ doonandoo ñaar ci yenn jamono kon lu ne am na kenn yeneen yi ñaata lañ cent vingt quatre mille trois cent treize ci gën vingt cinq ci gën ñoom la alxuraan andi seen i tur juróoma ci gën vingt cinq yi demal ci bopp xasida sindi di bu fekkee xamoo leen juróoma ci gën ñooy ulul asmi waaye am na ku gën ci biir juróom yi bi sëñ tubaay def tawassul ci ñoom ci tuxfatul mutadarrin ñaar ñu ne xàbbu way la leen boole kenn ki mu tuddu ko doora a julli jàll kooka du seen morom kon am de rabbi bi nohin lu ci top wakun bi musa mu ñew ci gaynde gi wa bi muhammadin rasulillahi alayhi alayhi xayru salawatullahi door a jàll julli doora jall jàll kooku morom gaay morom ñeneen ñi katabtu anna al khat fa man mada wa man yati wa man fida wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qat lam yura wala yura mais kooku du moroom gaa kon ah kon kay yool màkk kenn la wala de association kennal yonent bi sax war naa mën a am bi kenn la cent vingt quatre mille lañu waaye moo ci gën kenn la bi bi annal muqaffa sayyidul xalqi Sëriñ Tuubaa nee na yonent bi kenn d'accord nañu yonent bi kenn est-ce que kenn yonent bi daa yàq ci kenn yàlla bi daal kon kenn borom Tuubaa bi sëñ a def lu baax ma ko bi ma ko defee ba pare ku mel ni man dootu am koo xam ne ku mel ni yow du am kenn nga ndax leer na radaliyallahu allazi qad faata min alquyuri wa misaali faata faaraxtuhu bi qidamin yaa Sadio Sëñ Tuubaa nee na bi ma doonee première dañoo tëj bunt bi amul deuxième loolu ñoom Sadio Samb nekk dañoo nekk li rek doon ubbee loolu rek waaye taalibeem bi nga xam ni genn buur melut ni moom histoire de l'humanité moom la ma Abdul Ahad wax ni waxtaanee ko dama doon ubbee suñ mag bi rek loolu di ko def ab muqaddima introduction la moom moom mu def yàlla ku ko def yàlla am li mu am ah, mu ko defaal ah doom ba mu sama doom moo ko joxaale woon du ma xaar ngërëm doom jox naa ko sama lépp ba mu sama bopp ay valeur lu am solo la yu mat yooyu yu mat di wax ci jamono jamono ji valeur da commencé jeex valeur deewal ah, yi xamé mam man dama d'accord ñu koy wax parce que buñ ko waxé am lu la taxoon loo xam day faxasu xaw dégg nañ mam dé waaw deewal yi xamé mam communicateur traditionnel yi nga xamné ne xamé mam la wax war di la wax samaami li ak day am luy tak nit ñi lo buñ leen ko waxee seen deret yëngu mu faxasu valeur mooy waaji jar ci réew mi valeur day waaje jar te valeur nit dafa war a incarner ay valeur parce que sunu maam yi danoo baaxoon l'islam bi mu fiy ñëw fii la fekk mbañum rus ak sollu lu yiw dafa fekk sunu maam yi di sollu lu yiw xaftaan yi nga gis muy ñetti morceau nit ñi di ko sol bi l'islam bi ñëw daa fekk sunu maam yi di ko sol sunu maam yu jigéen yi di sol sol bu jot woddoo ñetti sir ba ca kaw rabal lay doon tak ndapel pel ñun def no baye ak lolu legi jigen solu mel ni naaru goor jaar ci télé ñu ah bu fekke daje nak dessinateur bu ay mu mën ko dessiner te yaakaar ni loolu jàmm la nan lu bax di amé ci réew mi lutax l'islam téré won ku amul 40 ans di dem ci juma jigen bi amul 40 ans lutax l'islam téré won mu dem ci juma dafa am ay goor yu faible ño xamni amul maîtrise loolu rek a taxoon l'islam tere jigéen ju amul quarantan dem ci jumaa parce que mën ngaa romb nit muy julli sax nga yàq julle mais léegi nooy defee lim sol col goo xam ne daanaka ni nga ni nga ni nga ganee woon jamono nga mel rek col gu taq ci yow ba noppi ngay dajeeg góor ñi léeg góor topp la ba jëf ak yow safaan fekk yaa ko violé dëgg góor topp leen ba séq ak ñoom safaan fekk ñoom la bu dee dof bu maîtriser wul mu dal ci sa kaw ñu lañ ko violé dem tëj ko dix ans fekk yaa ko violé parce que amul maîtrise te yow yaa ni dumm ci kanamam mel ni naaru góor nañu dellu ci sunu maam yi bàyyi woon te bàyyi jaaxaan yi xale yi jigéen nga xam naa duñ kontaan farul xayri bi تنذير فرا لخير بلا نفيان أبدا وجاءني من رسول الله تنذير خلقم خير بزني ولد خيار زمرين إلى سويت من بريك mazaan gi mi def leen nii nu màggal Seexul Xadiim والورى والورى محمد منصور ñëw ci biir émission bi mu defe waxtaan wu kawe barki dem bi ma nekkee Amérique it wax naa ko ko nee naa ko am nga liggéey bu rëy bu la Sëñ Tuubaa yi def loo ndax gaañ ci àll bi seen pas-pas wàññeeku na te yow am nga beneen rôle bu la Sëñ Tuubaa di liggéeyloo boo xam ni e, faw nga accéder ci réew mi loolu kenn mënu ci dara boo ci accéder itam bum tere balaa muy neex nga doon loola ba noppi toog yor micro di wax ci borom Touba parce que ñun kenn rek lañ bëgg mu sëñ Touba nag ñun moom kenn gondiwuñu man fi ne xaw kenn ci kenn dara man sëñ Touba doog laa xam li lijjantiwuma kenn nit man ba ma jàngee ba xam ne sëñ tubaa daa ñaan yàlla ne ko ku ma bëgg jéggal ko ci laa bañ ñëpp bëgg sëñ Touba ixfir bi jaahil Moustapha li kulli man ahabbani li wa ci maliki zaman ci laa bañ ñëpp mën jàpp sëñ Touba ku ci ñàkk fayda nag ba am leneen looy dëgmal di ko xool wala yeneen pas-pas yoo gëm di nga perte fii perte am na sax ñu jébbu ci borom tubaa ci sutura sëñ tubaa sax ñaanal leen la àjjana te jamono jii ñun xel wii ñuy daw dafa yéex parce que bu fekkee méthode bii lañuy defee ay jàng du jàll parce que léegi politique politique moo am ak politique religieux moo am am na bariñ la lu seen bop lay weddiloo ki nga gëm ba pare bar la gëm chaque guddi damay jël sama temps life buñ mëna a def ci sëriñ bi mbala ñu def ko ci kuy xex sëriñ dama koy suivre ba mu jeex di comprendre gaay xel wi ñuy daw ak démonstration yi ñi def ngir bëgguñoo déconnecté gaa ñu bari déconnecté nañ té li ñu déconnecté dafa am rythme ñu top yoom xamuñu lum doon té gis nga loolu ñu top suñu pas-pas

يوم الخيام يا إرم جا waa dama bëggoon lu sant sëñ Tuubaa may na ma ngëneel loo xam ni waa rijaalul xëy bi ñoom ñëpp ñee nañ ma ci man sëñ Tuubaa faddalan yow doxu rijaalul xëy bi ñëpp ni woon ngéej jot moom la ko yàlla jox loolu tax sëriñ Bay Jaxate bi muy tàgg Seex Amadou Bamba euh, sëñ am dani ko euh, xam nga li nga wax léegi Sénégal dafa occupé coow li li muy bari bari ci réew mi xam nga ñi ko fi indi ñi amut mbër te matuñ mbër xam nga da ngaa dikk fekk nun ay murit la ñu noonu waa Tiwaawan jébbalu nañ waa feneen ak feneen jébbalu nañ kon lambi lislaam jii ci Sénégal moom ku ne am nga fi mbër daa am gaa yu dikk amuñu mbër matuñu mbër boo amut mbër matoo mbër xam nga lu ñu mat li ko làqutu di saaga di sagam bari waye dañuy laqatu de compte tiktok bo xamni amul wenn tour amul benn photo amul fenn fuñ koy identifier lolu ab ragal la koy def di saga gaa ñu baax ñi waaye moo tax Babacar Jaxate mu duggé ci lamb ji xol mbeuri ñu tous la doon ci xam xamni lamb ji mom daanaa na koy gagné xam nga ku gagné jojo lamb Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Bay jaxata dañ ko ba suq sajji ak dok seeni géewu ak tepp la xamni lambu tay moom tey ndaanaan a koy xala tay suqu sepp ngi ni xey daanu ñepp di gis borom Touba yow ya ngi ni taxaw ak say ndam di fudd ko jog man Babacar Diakhaté ma jóg te petit cous def way ko si yaramam neexal ko nag kañ ko ngir mo tee ma am lu so mo moo ñu ma ta mo tee ñepp xey ma mo moo ñu fenku ma parce sa saa yàpp danga guuf sumay wër ak sama gi ba wër ne ma est Serigne Touba fil ko dam li ya saa xol bi sedd gëriif moo tax ñu fas ni damay mbër ay taman duma mbër xiibon bun laa bu làqoo mbër mu jàpp ma wuuf mbër mi mooy Serigne Touba Xaadimal Mustafa mbokk yi euh, maa ngi nii toog ak ki nga xam ne moom mooy euh, Pape Djibril euh, Pape Djibril ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax ñu teewaay fii nga xam ne mooy ci màggal Touba première édition Yaraax lan moo nekkoon teewaay bi ñëw fekk si mbokku taalibe yi safonteeg ñoom gërëm leen sant leen ci initiative bu am solo bi ñu jël ci Touba Yarax muy premier édition bi ma ñaan sunu borom ñu def ko édition yu bare bare bare ba ay sët ak i sëtaat di ko donnante ndax lii lu am solo la daje waxtaan dollante jëmmi daje bi nii rek tawféex la ndax euh, yonent bi salaatu wasalaam moom moo ko wax euh, wax ne fépp fu ay nit daje di fa tudd gaayu bàyyi sunu borom dafay wàcce yërmande wa hinda zikru salihin tanzilu rahma yermande joj ñoo ñaan suñu borom wacce ko fi wacce ko ci yara tas ko ci bir senegal yépp mu yermande suñu borom bi nga xamanteni mom ci bopam mo wax ne mo gëna yaatu lepp te ñun ñëpp mom lañuy sakku dajje fi jang alquran dajje fi jang xasaayit ay mbokk dajje fi tay rek man dajje na fek suma xarit yo xam gëj na leena gis kon loolu mbégte mu yaatu la euh, liggéey bu rëy la boo xamante ni ñoom sëñ Abdou jëng ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ci àndal ñoo ngi koy def pour Yarax di ko defal Sénégal yëpp di ñaan suñu borom nag mu dëgëral leen defal leen ci tawféex wax dëgg yàlla euh, ñun sant nañ bu baax ci teewaay bi sant yàlla bu baax moom mi nga xam moo ñu ci boole di nuyu waa Yarax yëpp di ko jaarale ci seen médium bi nga xamante ni seen média bi nga xam moom ngeen yor euh, di leen béggee di leen sant leen gërëm bu baax li bëggoon xam ni euh, say relation ak ki nga xam ne mooy Abdou Lahad Dieng euh, seen relation yi ñaar ba bisam bii nga xam ne mooy première édition nga ñëw teew fii. sëñ Abdou Lahad Dieng ku baax la mbaax rek laa xam ci moom moom laay seede ci moom ku am yitte la ku bëgg a jëriñ askanam la ku bëgg a jëriñ euh, waa goxam lañ te loolu lu am solo la ndax ñëw fii ànd gi nga xamante ni moom la ànd ak waa Yaraax taxaw ci taxawaay bii mu ci taxaw jiitu ci ngir jëriñ ñi nga xamante ni ñoom la ñu jiital loolu suñu borom rek moom moo ko fay waaye loolu mooy ndono li nga xamante ni moom la fi Cheikh Amadou Bamba bàyyi Cheikh Amadou Bamba ndono li mu fi bàyyi mooy jëriñ doomu aadama yi jëriñ doomaadama aadama yi rek moo tax mu lu ne mu daj ko bëgg ñu jëriñu it moo tax dem wax na sax ne damay dem euh, damay dem wuti bu ma ñëwee ngeen añ te gis nga na mu wutee ca coono ya ca mitit ya donc tey lu nit mën a daj ngir jëriñ askanam na ko daj ndax xam ne ki ñuy roy teg ku bët muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lu ne daj na ko ngir tey ñu am taw tawféex bi nga xamante ni moom la ñu am ngir tey ñu moom suñu bopp moom gi nga xam moom la ñu moom suñu bopp kon sant ak muñ man loolu laay wax xale yi nga xamante ni ñoom ñuy seetaan di ñu bàyyi xel lu ñu sant nañ nañu ko xeeb lu ñu muñ nañu ko xeeb waaye lu ñu góor góorgóorlu ak liggéey nañu ko xeeb ndax njàmbaar dafa am solo. jërëjëf merci محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء من دمتهم ركعا سجدا صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم موك جولي تي موك طالبي غيناو بو ني سانتي يالا جولي سي سانغوب سانغي ñu ngi di di jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax ñëwoon fii nga xam ne moom mooy euh, Yaraax première édition gàmmu ya euh, Màggal Touba Yaraax àndoon ci suñu xarit suñu frère ki euh, nga xam ne mooy Baye la laxaat Lahat Dieng ah, Baye Lahat ñu ngi lay siyaar. ñu lay delloo siyaar baax baax Cheikh bi di nuyu waa TFM yëpp di nuyu waa SSTV di nuyu waa Yaraax yëpp di rafetlu jotaay bi Cheikh bi. Baye Yarax nan nga amee euh, mbégte ci li nga xam ne moom mooy euh, première édition bi nga xam ne moom ngay def ci Magal Touba Yarax. waaw xanaa santaat sëñ Touba bu baax a baax rek ndax woote ñu wuy si la yombul te wax dëgg yàlla tey jii kilifa yi diine kilifa aada yëpp dagg nañ seen i te ñëw ànd ak ñun ci màggal te ñëw ànd ak ci màggal wax dëgg yàlla suñu fierté la suñu mbégte la ndax euh, ay ndaw lañu te ñi fi ñëw ñëpp ay kilifa la ñoo ci gën a doon ndaw kon buñ ci wootee rek ñëpp dagg seen it ñëw rek dañuy xam ne du suñu jëm waaye sëñ Tuubaa la ñuy jàpp ñu ñëw loolu daal moom lañ ci mën a leeral. Euh, est-ce que est-ce que li nga xam ne moom mooy sa première édition bi nga xam ne moom nga doon def fii ci biir Yaraax euh, gis nga autorité yi nga xam ne taxaw nañ law wala ñi nga xam ne ñoom am nañ benn moyen boo xam ne mën nañ la see taxaw. waaw waaw ñëpp ma taxaw autorité yëpp tàmbale ko ci monsieur le maire Babacar Mbengue député le maire nga xam mooy maaru maire euh, Hann bel waye ku jambar la ci bis daanaka xaas beur léegi du jox ma ko ba noppi ñëw ànd koog man kat kat ya tax mu teel a dellu waaye ñëw na ko ak ñun ak soxna fat Diouf tamit député momit ñew na fi indi al xaalis bu bare bare jox ñuko defal ñuko ci bis bi ak sa Mohamed ñong ma Ayda Ndiong moom it na fi indi xaalis bu bare def ko ci bis bi ak tamit euh, Serigne Abdourahmane Camara momit responsable politique indi fay teranga yu bari ak pap Djibril Fall ñoom ñëpp ñëw ne kenn ku ci nekk boole sa sa alal ak sa doole ak sa xam-xam ak ku ñuy wax euh, Moustapha Yafa moom ci parents la bokk xaalis bu bëri la indi jàpp ci bis bi ak soxna Salbe Diouf moom it ku jàmbaar la ci bis bi ak ak borom këram Serigne Atou Thiam ñoo xamante dañ ñoo jàppale ci bés bi teraanga yëpp ñoo ko fi indi ak sa sëñ Alaaji Sey ma nekk Amérique moom it ci lool sonn ci ak boole waa dëkk bi yëpp euh, macha allah bu ñu paree ci loolu noonu euh, est-ce que ñu ngi xaar ki nga xam ne moom mooy euh, Abdou Lakhat Dieng ci édition bii di ñëw année bi année bii di ñëw ñu ngi koy xaar ba xam pare na pour defaat beneen édition bu mel nii waaw li fekk ñi dund te kattan gi dañu ko may ak wér gi rek fas yéene nañ at bu nekk ñu def édition deuxième édition troisième édition ba faaw ba ko faaw ndax loolu moom waaye yaraax ñooñu ko sas te mënatuñ ko bàyyi jàngkat yu mag yi dañoo nekk ci àdduna bépp te daaw ñëw ñëw yaraax yàlla dimbali nag ñu bokk ci waxtaankat yi bëgg dajale mbooleem jàngkat yi ak waxtaankat yi at mu nekk ñu jàppal benn bis yaraax dajale fi waxtaankat yi ak euh, jàngkat yëpp rek waaw loolu mooy suñu métier te mooy suñu yéene tamit ci dëkk bi. jërëjëf euh, Baye Lahad euh, ñu bàyyi la nga def sa mot de la fin nga tàggatoo. waaw santaat sëñ Touba rek sant waa daayira Munawir sudur tay tay tay wo ñëpp ci kër gi nga xamne mo lañ fi bëgg muy kër Serigne Touba fi ci Yarax moy suñu yitte moy suñu bëgg-bëgg lool nak ñing koy lancer message pour aduna bëpp rek ñing ci dox di ci wax da ci dajeel alal kenn ko xamne ci ni bonne volonté nga tayor alal te bëgg ñu ci jappalé rek bëgg a alal ci liggéeyal Serigne Touba ñing lay wo ci bis bi nga jàppale ñu ci kër Serigne Touba gi nga xamne ne nañ ko fi ci Touba Yarax ok moy mooy suñu kàddu jërëjëf حاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الرجعيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من من لم يطع عبادة تعب من أراد أن ما أبرام من طيف لم يدما جزاء من بارى سس العرش البكاء فكل من أبكاه ذو الكرش البكاء إن الذين كفروا وامتنوا من توبة رأوا جزاء ما سنوا بطونهم سكن على خريب والكل منهم من شديد شارب للمسلمين ولكل مسلمات نور الذي ألعب أهل جلمات هم الذين في الجنان يقلدون وهم بما يشرهم مقلدون منا موتوا بلا استلاب والكل بالبشار ذو انقلاب رجاءهم محقق ومليك يا بدي مالا يرى مليك بنا أم يعلو وليس يمشي فيه أمام بارز حليف منسفي بالله